door asalaamaaleykum mbokk yéen ñi ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com tey vendredi 8 8 février 2019 ñu ñëw yéen ci yéenekaay yi ma ci ma ciy ànd ak Jamaïcain rek borom Gambie borom Saloum borom Voice FM ak mbirkilaan FM jàmm ngi lay ziar. Lamine maa ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay di la ziar di ziar bépp internet bu ñuy suivre ci Lutte TV point com comme ni nga ko waxee Vice FM ba sa Gambie Mbirkilaan FM ba sa Saloum Lamine borom Loro tey lundi tey vendredi 8 février yaa ngi mande de nga ni lundi yow jamee gan wala daal tey. <laughs> Lamine xam nga rek yaa ma gën a xam tayit da ngaa nelawul waaw nelawu dara moom wax dëgg démb da ngaa sob doo nelaw guddi ñu ñëw ci yéen kaay àndee ci ak ci doon àndal Impact mooy ñan. MSD MS MSD Prestige MSD Impact Lamine booy laajte ñoo ñooy ñan sax yaakaar naa dafa am ñoo bëgg ko kokkaliwaale muy yeneen ñeneen ñi seen wet. Hmm. ndax MSD Prestige ak MSD Impact moom waxuma la réew mi waaye àddunaa leen xam ñëpp leen di laajte. Hmm. loolu nag li waral loolu mooy dañuy jaay ay qualité ay oto yu baax te dëgër te wóor ñëw ànd ak li TV bi nga xam ne moom lay àdduna di safoo di ko ndamoo ñu ànd ak ñoom. seen oto fan nañ koy jëlee ak noonu nu muy def ba ñëw ci réew mi. seen oto moom dëkk bañ koy jëlee doxuñ ci dara ay caaxaan Canada. kana daal lañ koy jëlee teg ko ci bato bi indi ko ci réew mi di ko jaay ay prix yu yomb yu ah. raisonnable dëkk Grand Pape la dëkk nu mu tudd Bus Pro. Ah. waaw dëkk boobu daal mooy dëkk bi nga xam ne mooy dëkk bu mag bi Lamine. mooy dëkk bu mag bi seeni pièces détachées ñoom dinañ lakk wala. lakk ñu doxuñ si ñuy lakk ñoom booy lakk sax bëgguñu xamante ak yow. Mm. moo tax ñoom ay pièces yu ba tey ni ma koy waxee rek pièces yu wóor yu baax la ñuy indi ci réew mi. di ko jaayee ay prix raisonnable te yomb Lamine. comme ni ko waxee dañuy jaay dañuy loué tamit ku soxla seen numéro bi yaakaar naa ne mu ngi bëgg a booy seen nopp mën ngaa def 77 227 07 84 beneen numéro bi mën ngaa def 77 393 33 10 ñu ñëw nag ci yéen kaay yi commencé ko l' observateur mu mel l' observateur moom dafa ñëw di def ab jàngat ci Gris Bordeaux bi nga xamante ne CNG bi convoqué fas yéene waxtaan ak moom ndax do koy da gàll ay daal ndax doo koy aj ndax doo koy dagg xaalis bu amaatee komba yooyu yëpp daal l'observateur ñëw na ci Jamaïcain Gris Bordeaux suba la war a wuy ji waaw lobs daal li nga xam ne suba xelaat yi ñu bëree xel ñu bëri ña nga ca muy woolu bi waa CNC woolu Gris Bordeaux lobs moom dafa def ñi nga xam ñoom dañuy xelaat moom nag yemul ci xelaat ko dafa xëy indi ci journal bi di laajte ne suba Gris Bordeaux CNC bi woolu lan la war a jëflanteeg moom foofu dañ ko war a aj wala dañ bëgg bu amaatee combat dagg ko wala boog CNC dañ war a jëflanteeg Gris Bordeaux loolu daal Lamine moo jaaxal amateuru lamb yi moo jaaxal nitu lamb yi lu tax lamb ju dem boo fii problème boo xam ne réglé woon nañ ko ñu wool ci waat loolu nag suba xaj na ku la woo bu la joxul wax la léegi nañ xaar rek ba yónni yàgg ba xam suba lan lañ fay jëlee waaw ku la woo su la joxul wax la comme ni ko Youssou Ndour waxe waxe woon rek moo tax journal sunu laamu tamit wal nañu Gris ci kaw moo lii nag open press am la ak Balla Gaye numéro 2 nga yëkkati ñaari baaraamam mi waaye Fass moom dafa mel ni Thierno Ka mi nga xamante ne CNG bokk moom ba tey suñu làmb moom dafa feelu Laps si wax ji rek Laps la feelu ndax Fass moom ñu ngi ñuy wan Gris Bordeaux ba tey mu ngi taxaw waaye waa Fass nag ñooy wax waa Fass nag ñoom kenn la ñu joxoñ baaraam jël la ñu yor di ko xapp muy cornaka nee nañ daal cornaka lii ñu woolu Gris Bordeaux cornaka ne ci gannaaw moo nekk di manipuler waa CNG loolu nag waxu waa Fass la Lamine la waaye suba loolu yëpp dina bi ñëwaat na tamit ci Ama Baldé ak Siteu rek ñoom ñaar da xëy fësalaat ñoo gën a fees fës ci xët bu njëkk bi waaye nag dafa mel arène bi ñi ko séq d'accord ñu ci combat boobu noonu ki ci njëkk wax mooy Bécaye mbay nee na moom Ama Baldé ak Gris Bordeaux la préféré. ñoom ñaar daan Lamine Ama ak Siteu buñ loon lu fekkoon ne moom dañ loon jaay jar nañ moom jamono ji waxuma la sax journalu tay bi rek waaye bu ñu xoolee janvier bi ñaar ñu gën a fës si peuple bi ñoom ñaar la Ama Baldé ak Siteu la ñuy teg chaque jour ci kaw journal bi di wax seen mbir ñii naan combat la ñii naan du combat kii nag. kenn la ci làmb muy Père Bécaye ñëpp a ko xam moom dafa xëy di ci wax nee na Ama Baldé ak Siteu daal man préféré ma man li ma xalaat ak li ma yaakaar man ne moo war am te moo jaadu mooy Ama Baldé Gris Bordeaux man loolu sama xel dem te loolu laa bëgg. sa loolu la xel dem te loolu loolu la xelam dem te loolu la bëgg Malick Thiandoum nee na moom su fekkee Gris Bordeaux mooy choix sportif bi waaye su fekkee xaalis Ama Siteu Siteu la. waaw loolu waxu Malick Thiandoum la Malick nag kàddoom yooyu noonu ba bokk na ca ñu bëri ay gis-gis ñu bëri foofu la ñu waxee nee nañ buy Gris Bordeaux la d'accord combat bi ci giri lay dépendre waaye buy Siteu la combat bi ci amaa lay dépendre liy dépendre ci yow nag ak liy dépendre sa morom mënuñu yem njëkk moo tax Malick Thiandoum wax ji mu wax moom Lamine di nga ko dëggal man mi dinaa ko dëggal ñi ñu sifur tamit dinañ ko dëggal xaj na combat bi tey lu ci bëri loolu la koom-koom bi dina bëri loolu ndax ñoom ñaar ay com ay mbër yoo xam ne lañ tey foo leen tëgg wala ku leen boole di nga def combat boo xam xam ah du ma ne musul am di waaye combat bu toll nii si histoire lamb dinañ ko gëj a gis Lamine. gars yi ne Fass Fass ak Pikine lañu soxla amateurs mooy classico bi nga xamante ne mooy classico bi comme niñ ko doon waxee ci Ama Balde ak ki nga xamante mooy Papa Sow nee nañ instant bi Gris Bordeaux ak Ama Balde moom la amateurs yi soxla. waaw li ko gars yi di waxee fi nga wokk mooy xesan delloo fa sab loxo. Fass ak Pikine moom dafa nekk dër boo xam dafa yàgg ci làmb pourtant mosuñu toog saison ba saison bi jeex te amut moo tax ren tamit gars yi nam ko comme gisaguñ ko dër bi ak Pikine moo tax gars yi di ko laaj muy nekk nag ci combat ne bu amee tamit dër bi bu mag lay doon ba tey gars yi ñu ko laaj nee na combat boobu li ñun amateur moom lañ bëgg moom lañ namm te moo war a am lii nag comme ni ma wax rek ci Gris la dépendre ci Gris la waaye comme ni ma ko waxee woon démb rek noonu lañ ciy ñëwaatee Gris Bordeaux du bëri ak Ama Baldé dugg na Fass trois fois Gris Bordeaux Pikine cinq fois la fa dugg daan na fa ñetti mbër ñaari mbër daan ko fa Ama Baldé nag 3-0 la dóoragul ndax waa Fass dañuy def 5-1. wala wala 4-1 wala 4 3 loolu yëpp combat bi bu taxawee lay leer Jamaïcain. waaw bu taxawee moom dina leer bu fekkee Ama moom day do day làbbali aju quatrième position wala Gris Bordeaux day effacé loolu moom fu mu jaar combat taxaw Gris nag li mu wax rek li may wax am na droit ne du ma bëri ak Ama Baldé waaye Ama Baldé moom def naa ci làmb lu mu fi deful guddi yi ku koy wax da wax lu la neex rek ku mu nekk war ngaa mën a bëreek moom ndax mu ngi di def ay preuve am bu bëree mu neex bu xeexee mu neex hmm. di indi mbooloo ci làmb kooku mun naa bëre ku nekk waaye nag Gris mooy choisir la mi xam nga ak kambu mooy lan kambu kàmb waaw kàmb de mooy luñ gas. mooy pax mooy pax. lii nag bu doon am pax la Balla Gaye nga ci biir waaye ñii ñoo ko wër Gris Bordeaux ak Tapha ak Bombardier mu mel ni ñoom ñëpp Balla Gaye lañ bëgg bëreel instant bi waaw lii de mooy li may wax rek ku sàcc mbaamam géwél moom jaay ko lawbe moom bu kenn ku nekk sa taay baax na sa poids baax nga doole ñoom ñëpp nag dañoo taxaw soo raawoon ko ku ci nekk di ko tàllal loxo di ko karkaral fu ku ñëwal ñu bëre moo tax ñetti ñii daal journal bi dafa xëy di ñu wax ne Balla pour mu escape ñii génn seen biir dina doy waar fu mu jaar daal boo moytul dina ci laalee kenn waaw ñetti ñi moom pour mu génn si moom daw rëcc ba kenn du ko ci nekkul loo xam ne guddi yi lu yomb la moo tax journal bi xëy ñëw fësal leen. mu mel ne ñett ñooñu ñëpp kum ci jël revanche day doon ndax ñoom ñett ñëpp jotoon naa laale ak ñoom day Jamaïcain waaw moo tax mu doy waar ñoom ñetti ñëpp dafa jot a laal ñoom ñii am nañ ci moom ndam ñii moo am ci ñoom ndam ñi mu am ci ñoom ndam nag moo ëpp kenn ko ca daan muy Bombardier buy Gris ak Tapha ñoom ñaari moo am ci ñoom ndam di ci kayit wax waaye nag Gris moom boo waxee mu ne sama digganteek moom amul ci man ndam dañoo war a leeral waaw waaye nag li ki nga xam ne nii moo jaaru li ñëpp gis Balla Gaye 2 moo am ndam ci kaw Gris daan Tapha Tine ko daan Papa Thion mooy agent wu Tapha moom nee na combat bi gën a instant bi bi gën a jaar yoon mooy Tapha ak ak ak Balla numéro 2 waaw Lamine fi journal bi ñëwee rek moom Papa Thion fay fa la xëy ñëw tey dañuy feelu moom moom ma nga génn moom fekkee ñoom Bombardier moom ñi leen di waxal dañuy nelaw Papa Thion mi moom bokkul ci ay ñu ngi nelaw moom moom génn pour njëkk a wax ay doléance am nee na ñeneen ñi ñuy waxal Balla Gaye yëpp combat yooyu logigut maag Balla Gaye mooy làmb ji jaadu tan làmb ju taxaw moo tax daal Lamine li ma la wax rek Balla Gaye pour mu rëcc ni yomb suba suba boo dénkoon ki jege Gris loolu lay wax boo demoon ca lii lay wax kon Balla moom dina jar ren. kii wax jar na ba bëri na dimanche passé daan muy Mama Lamine Sarr daan ki nga xamante ne mooy Bour Sine waaye nag tey bam fa mu dóor moom yaakaar naa ne day diis lool ci moom ñaari ñami laaj yaakaar naa ne dana diis lool lool lool lool ba yegg ci lool ci moom Tapha Tine da lay laaj ak Malick Niang moom Mama Lamine waaw Mama Lamine de loolu la def gannaaw bu mu defee keroog arène nationale bu lu rëy ñu ne denn waaye Mama Lamine moom ñu doon a jëm daal mu ku tëbee air plus 4 jëm suuf moom nag a naa ne boo moytul dara jey fekk du say mbokk ah am na ci droit xaj na dafa peese boppam li mu sëf keroog Bour si xeex moo tax mu dem xool ñi nga xam nii tey jàpp nañ ñoo daa xeex ci làmb ji mu ñëw tàllal leen loxo pour bëgg a jëflante ak ñoom nee na ñaar ñooñu ñoo ko teree nelaw jàpp na ne tamit kéwal moo koy mooy ki ko def mbër nee bu am bu ñu àndee ak Siteu ñoom ñu moom ak Siteu wax na ci seen diggante tamit nee na ñoom benn famille lañ waaw loolu la wax de loolu moom bu ko waxee sax ay yàq wax la rek waaye ndax Sénégal gi yëpp xam nañ loolu diggante moom ak Siteu moom boo xoolee sax ñoom ñëpp ay tarkindaa lañ leen di wooye tarkindaa bu xees beeg tarkindaa bu ñuul beeg bu njool bi yooyu yëpp dafa seen biir moom nag mu koy leeral nee na maag Siteu kuñ ay mbëri bokk ikri ay famille lañ ñun ñaar benn lañ mën ak Siteu sama seex la lu ngeen seen xool ci man di ngeen ko gis Siteu li ngeen xool Siteu di ngeen ko gis ci man am nañ tamit ay curkindaa ndax ndax jili tarkindaa moom curkindaa la ngel joon tamit wan na wan nañ ñu ko gëj nañ ko gis ci bëri simple bi waaye dimanche bi di ñëw gars yi ñu koy xaar fële ci Adrien Senghor moom nga xam ne nii day yëngal amateur ligue simple yi sëgg di gasu aw sëll nga nag dafa manqué gars yi moo tax gars yi gëj nañ ko gars yi di ko laajte waaye nañ dimanche bi séntu leen ko la ngel na gars yi lay xaar takkal ñëwaat mbërëm biram ñi ngi mi maa ngi lay jaar di la wax ne nag comme ni nga ko waxee rek tarkindaa yi moom dañoo bëri fem ay yaay kindaay gépp ci am ñoom Siteu Bamba Touba xam nga seeni i mbir ak seen fem Lat Diop ma ma nga ma nga Nigéria moom tamit nekk fa Tarkinda. Tarkinda la ma nga Nigéria ñu ngi koy nuyu di nuyu Seydou Traoré Ibrahima Dia ñu ngi koy nuyu di nuyu Abdou salaam Diop ñu ngi koy nuyu lu bari Iddi bu xarañ loo Saliou Guèye Demba ñu ngi lay nuyu Abdou Bey Karim Benzema Cheikh Bass Kër Massar Jamaïcain suñu match bi nag dimas de 16h fii ji nu mu tuddati. fii nii Jamaïcain Dakar Sacré Cœur mu naan décès di. Lamine Lamine Lamine man sama problème du loolu sa max bi bëri nay dat trop chaque jour a ne suba la. Cheikh Bass moo koy changé. Cheikh Bass bàyyil max bi ngay changé mu nekk ci forme bu ngeen sonal seen bopp Lamine ci làmb ji la aay bu ngeen ko dugal si terrain bi te du ma ko seetaan. toxal dat ak lépp ci am da ngeen xaar ma dem camp waaye demaguma maa ngi fii Lamine moom du fubal di leen ziar ñoom ñëpp di leen jox seen wàccuwaay Lamine tey nag sunu xarit sunu grand tey la Bab Dee muy Voblaine la diis ñu ngi koy souhaité joyeux anniversaire di ko ñaanal yàlla na ko féetee 150 ans si barke Seydina mook soxnaam ak ay ko wéyal ko. Vobline borom Belgique. ko laa la wax. sa gâteau bi saf na sokola sokola Lamine da nga naan sokola. sokola <laughs> sa gâteau bi am na sokola. <laughs> di nuyu tamit bàyyi laat loo Omzo bu Garga ñu ngi koy nuyu di nuyu ki nga xamante ne mooy Babacar Silla di nuyu bu Babacar Dramé ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu daal Mansour Sa Mamour Sakho. Babacar Sylla waaw mu ngi noonu jiili tarkinda du ma fat tamit ndoy la Pikinois moom tamit mbaru Pikine yi rek la gëm moom moom moom ku tudd Mbëru Pikine moom fii da ngeen defante ci commentaire yi. <laughs> moom moom bañ na ko ba moom ndooy moom wàccul commentaire bi moom. lu fi waaye di commentaire mu ngi koy na ko ba la Pikine ba moom caaxaanul ay caaxaan ndooy ñu ngi koy siyaar di jox wàccuwaayam bu baax a baax a baax nga xam ne ñu ngi suivre Lutte TV di safoo Lutte TV rawatina ñu nekk ci groupe WhatsApp bi tuuti ay saar ñi fa nekk yëpp yéen ñëpp maa ngi leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu gos duraat doomu ndey boobu nag bisam bi comme ni ma ko waxee rek ñoom gos ñoom xadaaf yëpp maa leen siyaar di leen souhaité ndax ñoom ñaar yëpp ñoo ñëpp ñoom ñëpp a xewleel suba ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax waa dem ba Espagne Lamine dinañ suñu xarit ni nga jaa doomu ndeyu Diouf ñu ngi koy ziar baax a baax borom Barcelone. borom Barcelone du ma fàtte Medoune Talibé Bamba ba ma fàtte tamit Alioune Salane du ma ko fàtte moom tamit ak ki nga xamante ne mooy tuuti yaay Sarr ak imam bi ci group bi groupe bi nag jameekee nee nañ na mënañ la groupe bi maa leen raw ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay boole ci dog yi xam naa ne yaa ngi si wax doo si jóg ñu ngi lay nuyu baax a baax a baax Lamine di nuyu gil si sunu grand borom Gambi borom écri route borom borom borom écri route borom Constant ñu ngi koy nuyu bu baax a a baax borom jant bi tamit mm-hmm. ak kay waa ñëpp ñu ngi leen di ziar gil si la 23 moo fay indi page le 24 le 24 sunu xarit sunu doomu nday jinne Mori diggante nongoloo ak Boy Balla Sénégal ak Gambi la def jël fii mbër jël mbëru Gambie booye ñu war a bëree ji Gambie loolu nag ñu ngi ko ciy ñaanal mu réussir ko di wax ne diggante Sénégal ak Gambie rek benn lañ comme ni nga koy waxee ñun ay doomu Sénégal bi lañ ñu ngi ñoom Matar Boussa ñoom Aliou li ñoom leen ziar ak Masey Samb Masey Samb ñu koy ziar sunu grand sunu xarit moo fa nekkal li TV ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa New York képp di nuyu Mariama sunu kot su jabong ñu ngi koy nuyu di nuyu Serigne Mbacke Mbacke kot su jabong ak tamit grand pape ak Boissy bu Boissy papa ñu ngi lay ziar la jox sa wàccuwaay per gëj nañ laa dégg coach su Jobang sunu papa ñu ngi lay ziar sunu papa Xavier sunu papa grand pape yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu sunu père Beuz ñu ngi leen ziar bu baax a baax a baax dinañ jox seen wàccuwaay ay mag la ngeen nag te da ngeen koy bañ.